Bienvenue à Dakar Sénégal bienvenue chez Dibiteri Lomboté kër Cheikh Abdallah Fall numéro un lañ ko duppee ci képp kuy jaay tey lakk yàpp fii ci Dakar mani yàpp bu nooy nepp ñor xomb ba ca yax ba moutarde bi wër ko sauce vert bi romb ko soble bi sànnee ko ca kaw kaani gi ci wet gi xet gay gilli mburu mi tàng jër xam nga ni dibi bu neexee nii ci la mbote dong nga ko mën a amee waaye yéen ñam ngeen yàpp saaf bi ñi ko ñam ñëpp nee nañu yàpp saafu la mbote ak bu tabaski amul différence ey gaay ñi mbote mbote lu bari nañu lool waaye dibiteri la mbote ñaar la fii ci Dakar jàppal am nañu dibiteri la mbote kër Cheikh Abdallah Fall chez Papis bu Serigne Sall Médina rue 11 angle 8 téléphone 77 036 50 88 ou 33 822 13 88 am nañu aussi Mamel Kër Jaraaf chez Papis bu Serigne Saliou dibiteri Cheikh Abdallah Fall téléphone 77 0 036 50 88 ou 33 865 31 09 alors chers clients précisez bien ci zone bi ngeen nekk ngir ñu mën leen indil seen livraison ki bàyyi xel seen chaîne bi di Baol TV Naar Fall mu ngi leen di nuyu demaan mbégte bu baax ak contentement di jàkkaarloote ak yéen mbokk ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla yërëm leen xaareen aljana ñu tawat yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñu caab féet ginnaaw yàlla na suñu borom génnee bañ dellu siwaat seen biir mbokk yi na leen saa su ne da leen koy defal comme ni leen ko daan defalee nee na leen fépp actualité làmb nekk dinañ fa dugg waxtaane ko waaye ku ne xam na ni euh, le 18 incha allah biir ñëw muy dimanche biir ñëw petit production moo woote fële ci arène nationale journée bu neex combat bu war dox ci diggante ki nga xamante ni mooy Siteu bu Ngor ak euh, Naar Sogas waaye mu toftal ci yeneen combat yoo xamante ni ay combat amateur la ndax yaakaar naa ni ki nga xamante ni mooy Fourrière bu Grand war na faa jàkkaarloo ko ki nga xamante ni mooy caatu caatu caatu jolof waaw Fourrière caatu jolof waaye ki nga xamante ni mbokk yi mooy Babacar Balde mii ñu toogal war na faa jàkkaarloog ki nga xamante ni mooy Sabala numéro 2. Sey jàmbaar war faa jàkkaarloog ki nga xamante ni mooy Ngoma bu Malika waa Malaw Seeraas numéro 2 waaw nga dëgg de. gaa ñoo tam Babacar ba mëpp ñu lu dul bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan ak moom Malaw Seeraas numéro 2 bégg naa la ziar la. man naa ñu la fay gërëm sant yàlla jërëm seen bi sant seen Tuubaa wér sant suñu ñaar waajur sant suñu sëriñ sëñ Atex Mbàkke Fall di nuyu mboolu mu jullit di nuyu Sénégal entier ne wax yàlla na fi jàmm yàgg dëkk bi yàlla na fi jàmm sax parce que jàmm rek bu jàmm amul rek dara dara du mën a dem yàlla na fi yàlla jàmm am ñëpp ñekk ñu xam ne ñoo war a dox dëkk bi war a am jàmm yàlla ñu si yàlla def jàmm yàlla am jàmm si réew mi ñoom mën a am jàmm ñëpp mën a am jàmm ñu mën a continuer lépp suñu activité incha allah. Hmm. macha allah yaakaar naa yaa ngi ci dernier réglage bi ndax yaakaar naa dimanche moom ñëw na ba pare waaw ñu si dara daal di wax ñun a pare incha di ñaan yàlla yàlla suturaal ma ñun dam sut bi par instant par nañ yàlla hmm. mais combat bi waroon a dox sa diggante ki nga xamante ni mooy caatu Ndakaaru suma juumul ñu jékki-jékki combat yàq yàqu amateur euh, ñu bëri di laaj combat bi lu ko yàq sa diggante ki nga xamante ni mooy caatu Ndakaaru waaw caatu Ndakaar man xëy ma sama sama manager woo ma ne ma ñu ñu ne ñu ne caatu Ndakaar a bëri ndax ma daa na mu tànn ak jàmm blessure ba mu ba mu ñaar si activité am a te ka ñaanal yàlla yàlla may ko wér ngay waajal adversaire euh, doon def ci moom lépp di préparer di entraîner pour moom ñu jekk na la na mënatu bëre loolu lan lay def ci. waaw loolu xam nga loolu mooy li may préparé mais yàquwaat na dañ sant yàlla rek xam ne loolu waroon am ñu comme que ñu am nañ beneen combat di prévoir le 10 jours parce que ñu ngi woon si bis bu pare parce que entraînement mooy lépp rek. Uh-huh. te nekkoon si entraînement pare nañ moo ñu amal adversaire di ñaan yàlla yàlla may uh-huh. mais en général gars bu adversaire Musaana blessé wala combat bi yàq combat boobu dañ koy annulé mais Babacar Balde euh, ki nga xamante ne mooy adversaire am blessé ñu wutal ko beneen adversaire mu jël ko loolu tam est-ce que du risque. non loolu sax làmb la rek làmb la rek dañuy làmb rek xam nga tamit moom tamit mu ngi doon toog amul adversaire sabala la di ko nuyu wax passage moom tamit mu ngi doon pour ko baax bala mu jël ko parce que tamit boo boo toogee bërëb boo yor avance jàmm da gën a métti war a bëriwaat yeneen combat moo da ngay jëm bërëb bi yàlla may leen dem nga xool leneen mu mm-hmm. doon ñu bërkaat bërëb vite fait parce que entraînement fa ñu war a entraîné ñu ngi seen dañoo bëgg le toujours ñu confirmer ñu confirmer da nekkaat si leneen incha allah mm-hmm. adversaire bi nga jëlaat mi Sabala numéro 2 xam nga ko Sabala xam naa ko xam xam naa ko ni si làmb rek xaw ma ko dafa dëgg fi yàlla xam naa ko ni si làmb ne nga seetaan làmb combat waaw ah, seetaan naa ay combat am seetaan naa ko combat am waaw na seetaan naa ay combat am rek gis naa ndax xam naa ne daan la moom masha allah daan la mm-hmm. mais mais Sabala ku ko xam xam ni day bëre day xeex Malaw Seras numéro 2 dem jël ko lan moo la duggal ci moom. waaw mais la dina na rek war a bëri rek xam naa suñu borom moo tuddoon ñoo waroon bëri lu dul incha si koom rek ma làmb rek day a neex rek maa sas ma doo moom làmb ji da ngeen bëri xeex bu soobee bu soobee suñu borom incha allah ngeen bëri si kaw si kawam ndam sedd gaaw incha allah mhm. mais mais xaar seen diggante ñaar ndax euh, Malo Seras dernier combat am digganteem ak CFA gis nañ ko xeex bu sax dàq la indi adversaire am mujj gi mënatul bëre mën nañoo xaaraat lu mel noonu sa diggante ak sa bal xamal làmb la làmb moom ah <laughs> boo ñëwee ba làmb da soo xam looy bëre mën ngaa mën ngaa calculer la ñuy bëre ñu xaar ba bis làmb ji ba at ñu ñaan yàlla may ñu ndam rek mais mais Malo Seras numéro 2 xamoon ak Malo Seras bi ñuy gis léegi ça fait deux parce gis léegi Malo Seras bu stable boo xamante ne bu ñëwee ci géew du patiner du du du yëg lu bari day soulager wu loolu la moo ko def ci moom. waaw affaire xam nga tey dañ naan <laughs> reculer pour ministre dara parfois foog foog foog ay ndogal dal la nga mën a xam après na mën a toogaatee tey ndogal bi ñu dalee ñu ngi ko nangu di si liggéey si travail xam ne ñun si réew si réew mi ñu nekk nii wala espoir wu ne wala si àdduna sax lépp loo loo. pour pour nga avancer la nga mental la feru woo kon te loolu la ñuy doxee man saa bu ñëwee léegi combat yi à la légère jël entraînement ñu ah, am suñu doole toog mm-hmm. jël kaf mm-hmm. te bu njëkk ba dama ñëwoon def yenu doon ay boor yenu ko mais léegi yàgguñu si làmb yàgg nañ si làmb mais am nañ si toll soo suñu xam moo tax ba léegi combat yi ñëw sëlinte la ñuy ñëwee xam ni ñuy bëree xam ni ñuy demee moo tax léegi man dañ dañ sant nañu yàlla bu wér li may ndogal ñu toog parce que jàngal hmm. mais ma euh, Mara bu ñu waxee ñu ne écurie Fallaye bokk na ci xale yi fa dàq bëre bu fa dàqatu bokk na ci xale yi nga xamante ni ñoo fa dàq bëre mais ay combat da daan ñëw kenn du xam lan la xam na moo doon tax muy euh, ñàkk ay combat yaakaar naa ba xam man su may man lépp lépp man dal barke Serigne Touba man lépp moo dog rek la parce que suñu borom moo ne nit ki ku ko woo toolu gëm dina ñun tëju da nga kaa gëm yaakaar ko moo moo ko gëm nañ ne moo li ñu nasoo rek dañuy xam ne lii moo doon am barke Sëriñ Tuubaa li moom Serap Fall wax rek Abdou moom lépp lu ko dal moom daan alhamdulilah muy safaan muy bànneex lépp luñu dal daan alhamdulilah parce que ñaan yàlla na fa yem li si des doon ay victoire di sedd guy te gaaw si ñu bañ bañ delluwaat les armes allah uh-huh. waaw mais gars yi ne nan Zil bokkoon na ci lu doon perturbé xale bàyyi na la ak sa la mais suñu borom moom rek moo xam li loolu baax waaw moo tax léegi instant yi anyway moom instant yi ñu ngi suñu bu baax waaw. instant boo amee combat yéen ñaar nan koy dundee yaa ngi waaw instant yi moom wax dëgg fa sama yi passé yëpp may CFA bi yëpp SA ba léegi damaa may jàmm. saa naa si moom da xam kii antenne ba antenne a ba pare seen bi mois des yëpp ñaari mois yëpp da lay sa sa salaam. soo ñëwee indi sa costume sa benn costume di ko nuyoo passage Mbisaan. waaw mu si jàpp bu baax ak ñoom Fallou di ñoom Liis ñoom costume Yves naan ko costume di la ñaanal jàmm gaa yi si jàpp ba xam ne sa waay pare na da lay bàyyi. am sport moom loo gis rek la fa nga nekk fa nga fa nga mën a fa nga mën a toog posé wu di xalaat di def yenn yi ndeysaan dañoo bàyyi ñuy nekk tranquille daal. Mm-hmm. macha allah mais yéen a ngi ciy waxtaan ci combat par exemple mu wóolu ci ruq. ne la nangam nangam combat bi nii ak nii nga ko war ma sama moom bu bu bu paasee si salle moom du ñu waxal parce que dañoo rusante ma ne si lañ tudd waaw bilaay man sama lu ëpp sama yàlla laay waxal waaw man moom bu ñu paasee salle bi moom moom. waaw du ñu waxante lu bëri waaw wax sama sama benn xarit lay wax sama waxam waxuma ko waaw. noonu la mais kersa googu nekk sa diggante ak moom la moo ko. barke Sëriñ Tuubaa xaw ma sax bilaay wala noonu la mais parfois xanaa ay entraînement sax laay commencé mbalagante moom bu lëfante noonu mais bu dul loolu moom waaw bilaay. Mm-hmm. mais booy bëree mu nekk ci stade bi lan lay def ci may yokk joma fulla rek xam ne tey lamb ji mooy la comme lamb ji ma war a jëm nii rek dimanche incha allah bakkan bi dañuy teg rek barki maam Serafal. ba suñu carrière ba lamb yi jeex lamb bu ñuy bëri bakkan nañu teg. waaw parce que lamb lu ñu war a prouver bu neexee suñu borom. waaw bu neexee yàlla. mais Babacar Balde gars yu bëri nee nañ ay dafa yaru ba mu ëpp. Euh, maanaam safut mbër la ko gars yi di wax dafa yar ba mëpp parce dañuy gis mbëri bu ñëwee xajam xëppante suuf xeex affaire yi loolu loolu mun gis ñu ko ci ci Malo Serap. non man <laughs> dama koy jéem a barke Serigne Touba mënoo mënuma ko billaay walaay barke maam Serap Fall ma yaakaar. wër na borom Touba damay jëm mosal li mu mën damay gis gars yi damay bëgg def damay ree surtout surtout sama waa yi nekk fii nu mu tudd sax kii waasin tóor damay bëgg def comme waas damay bëgg def comme waas pour ñëw yëngal làmb ji mais du ko mën xam naa naa dem si waas mu jàngal ma ko incha allah waaw waas xëppoo suuf waaw xëppoo suuf comme waa xam nga ñoo bokk dëkk ñaari cokkeer uh-huh. waaw di nuyu di nuyu waa Fatick waa ñaari cokkeer yëpp di leen nuyu sama sama waa dëkk maam foofu xam mm-hmm. sama maam fa la juddoo sama ñoom yaay yëpp fa la juddoo waaw di leen nuyu mais am nga ku mel ni waas sa wet pokola waaw non Pokola moom yii moom noonu la kat moom. non bés bésu Pokola daa ëpp. ah boobu daa ëpp. ni mu koy defee dafa ëpp dafa eh, ëpp Pokola kay boobu kay garaawul yii Pokola boo jëlee bésam da bëre. yii Pokola bi tàngal laam daa ëpp. Ah. Ama Balde yaakaar naa ni boo amee combat moom it di ngeen ci waxtaan. waaw ah moom moom li ñu am lu ñu dugg rek da koy yëg teg ñu si code teg ñu si. li ñu a teg ko teg ñu si axe. waaw incha waaw. man man moom noonu man man sama man man ma su ma su ma nekkee du ma demee deux sama xarit yi nekk fii yëpp man gars bu ñuy bëri si laa gën a man su ma bëri du ma tiit barke Mame Cheikh Fall bu gars di bëri laa tiit. billaay walaay barke Sëriñ Bamba. bu amaat nekkee ci a ma nekk rek man du mesure entière laa demee barke Sëriñ Tuubaa. Uh-huh. Uh-huh. mais Malo Seras na lool. Euh, ba tax na lu bëri lu ko jooyloo dafa yomb. waaw loolu moom loolu moom bilaay lool loolu la problème bi ko tey sax affaire damay gis gis rongo ñu génn <laughs> barke maam Serap Fall bilaay. waaw dañuy sant di sant yàlla rek. gis lu luy metti nit. waaw barke Sëriñ moom su ma ne sama gaan may bëgg baaw. man nga nekk ci kaw man ma nekk ci suuf sax parce que man lalaay dundee may bëgg saa su ma ànd ak yor ci kaw man su ma ànd ak nit nii may bëgg di sedd guy ta gaaw laa bëgg dama bëgg sax muy jël coup comme ça pokolaay sox bu ñuy bëri jël coup may metti uh-huh. bi la naa sax kii Babacar sama uh-huh. sama xol sama kii sot barke Serigne Touba bi laa walaay noonu demee uh-huh. mm. mais mais mais mais bu gaa yooyu di bëree li li ngay yëg ci biir ci ci biti fi nga taxaw booy bëree ci biir doo ko yëg. bu ma ko yëg barke Serigne Touba ba gaa yi di bëree damay tiit wër na nga noppee noonu la fit wi ree. noonu la affaire yi noonu la mais fit moom xam nga fit <laughs> ñu fit rek moom Serap Fall nag yaa ngi ci jàngum xeex gu metti non problème bi non jànguma xeex de. ah course bi nga nuyu léegi lu muy lu muy def ci. non course kooku bi ma yor si entraînement yooyu misaan. ma yor pour xeex la non du xeex de ah ñoom kii lii sax Ivoire. waaw ñooñu yor dañuy jàngal rek mun a fent ak rek la ñuy jàngal. fent ak song waaw ak moom yaa dem koy def ndax bii sa combat bi passé doore ko yàq. non Dóore sa loxo yi loxo yi génn naa Dóore moo de. Ah. waaw naka Pikine. Ah, sant yàlla wala Pikine ñu ngi sant yàlla wér di leen nuyu ñoom ñëpp woo dimanche incha allah di woo waa Pikine ñëpp képp ki doon Pikine dañu mën leen woo. Mhm. incha allah mi ngi waaj. Paate waaw mi ngi waaj <laughs> borom coow li. combat fu mu ko mais pas mais daa mel ni moom moom Lirou Diane daa mu mu am de Lirou Diane ne du bëri si moom ak kii parce que mooy indi Sakess xam nga Lirou Diane tamit moom drapeau la fee. waaw mooy monument xam nga Sakess du bëri te Lirou waaw du bëri Lirou Diane du bëri foog Lirou Diane ëmb ko indi waaw moo tax. mais combat am loolu spécial doon grand combat la gaa tëgg. waaw incha allah mais boo amee combat yaa ngi de xanaa ñëpp nga rus. man Serigne Bamba non moo rus moom Pathé moom ay soxam ñoo koy sonal poog laa waaw waaw man noonu waxaa rus moom. mais booy seetaan ay interview Pathé muy wax. non mais réer barke Serigne Bamba. yaakaar naa bërki dem am na sorti bu mu def dalati ci waa Pikine magi Pikine. Pathé daal Pathé ngi noonu rek yàlla yàlla defal jàmm Pathé ngi noonu rek naar Pathé moom mi ngi noonu rek waaw. macha allah am na solo mais Ama Baldé Gris Bordeaux yéen a ngi koy waaj. waaw ñu ngi koy waaj ñu ngi koy waaj bu baax ñu ngi koy waaj bu baax ñaan Ama yàlla na ko yàlla may ndam sedd guy waaw du ñu woo Fatal ma doon wax rek xam giri moom suñ suñu garaa boo xam ne moom dañ koy déglu parce que daa day day day jox boppam valeur moo tax day jox mbër yëpp valeur ñu koy nuyoo Fatal giri boobu eh, sama papa ma joon xam ne lépp lu ñu wax rek moom xolam moo tax man ma bëgg ko Baye Mandione waaw di ko nuyoo passage Père Ndione dañuy dëggante parce que xolam moo tax parce que nit su ma la jàppale sa xol laay jàpp ak sa taalibe te moom xol foo dégg ñu Baye Mandione xolam daa rafet waaw man loolu la mu neex la combat kaw Liss nga wax rek li kër Laurent la wax Liss non à la violence Pokola non à la violence amul xulal li li nag li passé na mais bu bu ko defaat parce que làmb la rek dañ ko waxtaanee parce que ñun ay ay ay nit yu ay sell lañ. te làmb ay noobul ñoo koy def. tey mais làmb commencé na yàqu sax parce que coow li nii nii nañ ko bàyyi ñu xool ñu defee waaw di ñaan Pokola yàlla may ko ndam le uh-huh. allah. mais dafa am mbër mu ne Pikine boo xamante ni wutal ko combat dafa jafe Tyson 2 yaakaar naa ne xam nga ko. Tyson 2. Tyson 2 bilaay. Tyson 2 bu Tyson nga. Tyson 2 même Ndiaga Thiam wala Ndiaga Thiam. Ndiaga Thiam Ndiaga Thiam 12 benn benn défaite 11 victoire. ay l'an 2000. ba l'an 2000. ay Batista Sane numéro 2 ba léegi mu ñëw. Batista waaw. waaw ñu Pikine daal dañoo sox parce que amuñu promoteur. mais am nañu ñëw parce que gis naa gis naa góorandoo ñëw na bi nii. waa kii mi ngi ñëw nu mu tudd sax. kii. Sarène waaw kii. production mi ngi ñëw incha allah yàlla baax na xam naa ne yàlla di di di comme comme gars yi seen dëkkuwaay ni amay promoteur ñu ñu amay promoteur léegi euh, góoram ah, Jackson la gars bu moom may jël boobu combat Tyson 2 mu nangu rek ñu ngi ci ginnaaw moom waaw incha allah. d'accord Jackson waaw lamb bu neex la nag de. lamb bu neex ah, moom moom moom mooy may waaw mm. kontaan nañ daal ñu la gën a di nuyu ñëpp nag di nuyu waa Pikine yëpp di nuyu sama gars yëpp maa ngi nuyu di woo ñëpp di nuyu mafia Galle Pommes di leen woo si bi mafia AFD bi guddi gi yëpp di leen woo di woo waa Bentali sama gars yi koñ Safala comme que sama ñëw ko ñoom sama sama gars yi ñoom borom daal. koñ Safala waaw non sama koñ la. waaw non en fait dama fay di nuyu di nuyu sama grand laay di woo mafia bi yëpp di leen woo ñoom ñoom ñoom borom daal ñoom maa ñëpp di leen woo waaw ñu maa ngi woo mafia gi yëpp mafia sama sama sama jour nag sama sama jour bi Saasumaani sama mafia ma Saasumaani jour di leen woo ñëpp di woo ñëpp si ànd naa ñëpp di woo waa Jubo ASC Jubo bu gay waaye di leen woo ñoom ñëpp incha allah di ko teg si loxo Serif ak Rosé incha allah. Hmm. am na solo mobilisation yaakaar naa ne kenn du ko wax. non non non gars yi pire pare nañ. incha allah dañuy takk jóg ñu neex yàlla incha allah. am na solo adanaar kontaan naa. kontaan nan Badou gis nga tey leen leen indiloon ñu nekk nga xamante ne mooy Malaw Seras numéro 2. waaw yaa ngi gërëm <laughs> Pape Gade neel mi ngi gërëm yaakaar naa ne combat bi nee naa leen dimanche bii di ñëw la 18 euh, petit production tegu ko mu war a dox ci diggante ki nga xamante ni mooy Siteu bu Ngor ak Naaru Sogas euh, ki nga xamante ni mooy Babacar Balde mi ñu doon jël war faa jàkkaarloog Sabala boobu nag mooy kombaa bi nga xamante ni amateur yu bëri moom la ñuy xaar say jàmbaar ak nga xamante ni mooy Ngoma Fourière war faa jàkkaarloog ki nga xamante ni mooy Caatu Jolof journée bi daal yaakaar naan mbokk yi ku fa ñëw di nga màndi làmb ñi béggee ñëpp euh, di siyaar ñëpp di béggee ki nga xamante ne mbokk yi mooy Serigne Fallou Seck borom tab Serigne Touba Xayra di ko ñaanal jàmm sutura ak teranga yàlla defal ko ko defal ko ko njabootam ñu koy nuyu ak ñaari soxnaam yooyu euh, soxna Bana ak nga xamante ne mooy soxna Jaara ñu ngi leen di bégge bu baax di béggee ñëpp di béggee euh, Badou fay boroom Gunaas responsable politique nee naa leen moom la Gunaas jox bopp yaakaar naa ni euh, bu jugee Gunaas ñëpp topp ko di wax rek euh, candidat bi nga xamante ne moom la àndal muy kan Boubacar Camara su ma juumul nee moom lay jàppale ci li nga xamante ne mooy élection yi di wax nag waa Gunaas am ngeen gan Badou moom bu jugee xale yu topp ko ñu koy béggee bu baax a baax di ko jox wàcc waayam di bégge waa Tim ti Tissi Modou Karagay ñu nga fële ca Rue Lamine Gueye en face banque CBAO bi nee naa la si boo bëgg am na fa Lafaya Jesiner Tissi Góor. lépp luy sañse boo demee di nga ko fa fekk ñu nuyu PDG bi euh, Mourtada Gueye di ko ñaanal soxnaam su moom it yàlla na leen yàlla defal jàmm sutura ak teranga sëy bu barkeel yàlla defal leen ci njaboot bu barkeel ci barke yeneen bi di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen daala jaajëf